aywa mbokk internet yi euh, di leen di wax rek euh, comme d'avant euh, ngeen dal ak jàmm sur ma chaîne YouTube xam naa jëli wax yi kona mbokk réew mi ku am sa 10 millions joxe joxal ku la neex ku am sa 5000 booy joxe joxal ku la neex wante ku bëgg a dégg dëgg nag jàppal la chaîne des leaders partout TV lu def waxu yàgg nañ ko wax. mais nag lu ay di jàmbat parce que loo xam ne tey ay nit dañ kaa bokk te mu nekk loo xam ne benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar kon lenn rek lañ mën a def mooy lan ñu fas yéene paacoo li nga xam ne moom mooy mbir mi kon nag ku nekk am ci sa wàll loolu moom mooy tax ku nekk am sañ-sañ am droit wax li nga xam ne moom mooy sa xalaat ci réew mi te benn xalaat li olof di wax doyul kon nag buñ ko boolee jàpp nañ ne loolu moom mooy li war a doxal réew mi. niki tey ñu fa yéene dikkaat ci li nga xam ne moom mooy jàngat yi nga xam ne ñu ngi koy amal ci révélation boo xam ne gis nañ kii di Emmanuel Macron daal di koy def jëmale ko ci ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko buñ sa paree dinañ dikkaat ci yeneeni point ci doxinu réew mi ndaxte tamit ay citoyen lañ yoo xam ne jàpp nañ ne war nañoo mën a am xalaat ci li nga xam ne moom mooy réew mi rawatina nag nekk ay ndaw yoo xam ne dañoo war a jug pour participer ci lépp loo xam ne tey développement la parce que développement moom mooy li nga xam ne moom moo am solo te réew bu jëmul kanam mu ngi dellu gannaaw te ñun ñëpp liñ bëgg moom mooy suñum réew bokk ci réew yi nga xam ne tey réew yi gën a développé lay doon réew yi gën a avancé bu ñu sañoon ci lay bokk mais alors bu fekkente ne tey ñun loolu dañ koo jàpp mu nekk loo xam ne tey lu nekk suñu xel la te juguñu pour liggéey ko juguñu pour jëfe ko mën nañ ne avancement du mës am avancement nag bu fekkente ne bëgg nañ ko il faut dañuy nangoo taxaw il faut dañuy nangoo liggéey ci noonu ci la ñuy duggee direct ci ki nga xam ne moom mooy Emmanuel Macron gannaaw bi mu yëkkatee li nga xam ne moom mooy mën nañ ne remerciement lañ koy tuddee wala bokk nemmeeku wala bokk nit def benn acte boo xam ne bu nice la nga saluer geste boobu parce que bu ñu xoolee livre bi nga xam ne Ousmane Sonko bindoon na ko di sa naqarlu doxinu réew mi ak pasar pasare gi nga xam ne ñi ngi koy def lii di alalu réew mi moom mii di njiital France daal di saluer geste bi nga xam ne Ousmane Sonko def na ko rawatina nag maanaam parole yi nga xam ne tey mi ngi koy yëkkati pour encourager ñi nga xam ne ñoom ñooy. ndaw ñi te jàpp ne nag képp koo xam ne tey politicien nga war ngaa xam ne tey mbir mi yemul rekk ci langue politique gi parce que bu dee politique politicien rek nga ko bëgg a jàppee yow sa dund mën naa bañ a neex ci politique parce que ku nekk xam na ñun ni ñuy politiquer ici au Sénégal kon tey nit ki nga xam ne dafa jug mu gis moroomam def benn gest bu nice comme niñ ko waxee woon ci euh, bii passé ci ki nga xam ne moom mooy président Macky Sall parce que bu ñu xoolee vidéo bi ñu defoon démb ñi ngi ko si expliqué mooy bi Ousmane Sonko defee nemmeeku tour gis nañ ko moom it mi ngi jug commencé di def ay nemmeeku mais nemmeeku yooyu muy def lu nice lañ koy jàppee parce que waxuñu. nemmeeku goo xam ne dangay yegg digge fa dem sa yoon non non danga war a fas yéenee liggéey ndaxte tey ki nga dem di ko nemmi ko am na ay jafe-jafe yoo xam ne tey moom la amee mais nag bëggatuñ koo xam ne tey daf ñuy digg lii ak laa non moo tax tey loolu Ousmane koo def ñu gis président Macky Sall def ko dañuy jàpp ne lu nice la kon nag bu ñu xëyee tey ñu gis ne am na beneen problème bu amaat. kon dañuy jàpp ne loolu war nañoo mën am loo xam ne mooy résoudre problème bi am loo xam ne tey dina faj problème boobu parce que tey ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko gis nañ fi mu toll nii nii nii ñu bari di ko diaboliser ak ñi nga xam ne ñoom ñooy waay yeewi askan wi te dikkoon nañ si ci débat yële passé ba fi toll nii tax am sax ay nit ñoo xam ne tey génn nañ li nga xam ne moom mooy yeewi askan wi tudd seen bopp yeewi senegaal te li ko waral nag mën nañ ni du lenn lu dul ñoom nee nañ gisuñu seen bopp ci yeewi ndaxte yeewi ñaari leader rek la am muy xalifa sàll ak Ousmane Sonko ñooy buum di bumi di def di teggi te kenn du ne du nii ma ne nag peut-être mën naa am loolu seen xalaat la ndaxte nit tamit doo ko bañal li nga xam ne moom mooy ab xalaatam te buñ fàtte nag ci politique lañ nekk te yeewi askan wi ñu fi dikk ñépp ku nekk am na benn parti bu nga xam ne moom nga jóge wante ak lu ci mënti am mooy ne benn objectif lañ am mooy fa yéene liggéey réew mi di Sénégal mais Sénégal nan lañ ko mën a liggéeyee de un il faut que ñu booloo takku nekk benn comme ni ko maam Abdou Aziz baax daan waxee nañu tàppe xol yi parce que xol yi bu doonul benn jëf ji mënta doon benn te jëf nu mu ñaawee jàpp nañu wax ñaawe na nu ko tollu kon nag tey bu fekkente ne waa Yewwi bëgg nañ réussir li nga xam ne moom mooy seen objectif ci deux mille vingt quatre yi il faut <clears throat> ñu jéem a xoolaat seen taxawaay parce que wax nañ ko démb mooy sànqalañ buñ booloowee mën nañoo wat weer mais bu fekkente ne ku nekk dafa ber sa daaray bopp pour ñu duma la day nekk loo xam ne tey lu yomb la moo tax Sénégal dañoo war a àndandoo nekk benn liñ bëgg ñun xam nañ ko. liñ bañ xam nañ ko <coughs> mais nan la nit di xamee lim bëgg xam lim bañ nekk ci ay caaxaan nekk ci ay fo ba say doom ak say sët dikk di la jéppi parce que nettali nañ benn histoire benn mag am ay xale yu bari ay doom yu bari mais doom yi nekk ay soldaar mag mi dem bay bëgg a faatu mu woo doom yëpp ne leen ins bi maa ngi ci dernière minute léegi ma génn àdduna mu xool leen ne leen lan ngeen yor ñoom ñëpp ñu ngi yor ay xeej mu ne jox leen ma xeej yi ñu jox ko xeej yi mag mi boole xeej yi yëpp takk ko ba mu dëgër jox ku njëkki ne ko dammal mu damm mënta damm mu jox deuxième gi ne ko dammal mu damm mun te damm ba ñoom ñëpp jeex mu tekk xeej yi def ko benn benn kum jox ne ko lemal boo lemee xeej bi damm mu jox deuxième bi ne ko lemal boo lemee xeej bi damm mun leen voilà misaal maa ngi noonu samay doom ngeen mais bu ngeen àndandoowee nekk benn kenn mënul leen dara mais bu ngeen tàqalikoo comme ni xeej yi def benn fële benn ndar benn Dakar ku dikk mën naa jaay seen kaw jàll mais politique Sénégal noonu la mel boo gëmee sa bopp ne da ngay dem fa seeni xàll saw yoon yow dong bu la mbooloo kare dañ lay defal waxu waxuma nag dóor yoo xam ne tey dañuy dikk di xàcc di la dóor mais politique moo mel noonu bu ñu xamee ne yow fi nga jëm peut-être arrangé wu leen moo xam nga nekk parti au pouvoir wala nga nekk parti opposition lu ci manti am ku nekk day jéem a galgal sa moroom te pourtant galgal bu fekkente ne woon dañ koo teg ci li nga xam ne moom mooy xam-xam teg ko ci li nga xam ne moom mooy xàmmee mën nañ ne problème du gaaw a am parce que problème yu juddu yu ci baree baree baree bari ñu si bari ñàkk xam moom moo leen koy yóbbee Euh, parce que ñoom dañuy jàpp ne tey réew pour nga liggéey ko da ngay génne xaalis di maye te olof Njaay dafa wax ni di ma may jën chaque jour jàngal ma nu ñuy nappe moom moo ko gën kon dafa jaadu ak fi ñu toll nii ak fi jeune jeunesse bi toll jamono yii ñoom ñu xool waxuma bët yoo xam ne tey day xulli nii non bëtu xam-xam bëtu ràññee bëtu xàmmee mooy bët bi nga xam ne tey nit koo ko xool dina xam ne yow xoole woo ko bëtu kase parce que am na leneen lu làqatu ci gannaaw xoolin bi nga ko xool tey jeunesse bi foofu lañ toll maanaam ñoom liñ bëgg gis ak liñ bëgg a xam loolu moom mooy priorité loolu moom mooy li nga xam ne tey ñëpp ñëpp ñëpp moom lañ bëgg te ñëpp moom la ñuy xaar ci ñi nga xam ne ñoom ñooy jeunes yi léegi jeunesse boobu nag ñoom dafa am responsabilité boo xam ne moom moo nekk ci seen kaw ndaxte olof Njaay day wax ne ki lay dimbali pour nga yéeg yow da ngaa war a def effort ba car boo jàpp sa bët na ko teg ci car ba sa topp mais man duma la dimbali pour nga yéeg ma teg la sama kaw ndood pour nga dem nga fas yéene faa defar ab lal yow tëdd fa ne da ngay nelaw. jamais boo ko defee dama lay wàcce mais jeunes yi tamit fi mu toll nii regard boobu lañu am suñuy nguur ndaxte ñoom leer na leen ne tey nguur moo leen waroon a tungoom moo leen waroon a teg ci mbaggam mais defu ko parce que ñoom bëgguñu kuñ tungoom te olof Njaay dafa wax ne kuñ tungoom koo tungoom mu sud la te tey nguur noonu la ñu waroon a def yëkkati ñu teg ñu ci kaw nga xam ne ñun ñooy ay doomam bu réew mi baaxee ëllëg ñun jeunesse bi la mais bu yàqoo ëllëg tamit mën nañoo jàpp ne jeunesse bi am nañ ci part de responsabilité mais part de responsabilité boobu ñu ci am nag loolu moom moo tax tey ñu war a xoolaat bu baax a baax seen taxawaay xoolaat bu baax a baax seen toogaay ci biir réew mi ndaxte kaañ ko def joo gis kaañ ko waxtaane moom moo ko jiitu kon dañoo waroon a waxtaane suñum réew njëkk ñu koy jox kenn wante nag yàlla yàlla bay sa tool nit léeg-léeg dina xëcc loo xam ne peut-être gënul si moom bu ko ko yàlla joxul dafa war a gëm ne yàlla joxu ko ko xéewale la woo ko ko kon ka ko yàlla xéewale danga ko koy nangul mais nag du tee yow it nga wax sa bëgg-bëgg kon nag réew mi fii la toll jeunes yaa ngi fi waxoon nañ ko dañ koy répété waat mag baax na cim réew mais ndaw it baax na cim réew lu tax parce que ndaw moo yor doole ji mais mag yàgg na ak yàlla te tamit fekke na lu bari kon ndaw li bëgg a mucc bëgg a rëcc il faut mu collaborer ak mag mais nag mag mi nga xam ne tamit bëgg naa dund il faut mu collaborer ak ndaw ndaxte doole ja moom moo tax kon doole jooju moom mooy doole ji nga xam ne askanu Sunugaal moom lañ soxla doole jooju moom mooy doole ji nga xam ne képp koo xam ne rek yaa ngi ci biir réew mi soxla nga doole jooju ak koo mënti doon ngay góor wala ngay jigéen kon jàngatu bis bi loolu la woon di leen di jaajëfal te tamit di leen di wax bu dee yàgg may seetaan te gis nga ne am na jariñ nga abonné ci chaîne bi te nga bës cloche de notification bi te nga partage vidéo bi parce que dina si am solo yaa ñu mën a dooleel di ñu wax ngeen koj ñu seen chaîne YouTube bi chaque jour tout le temps incha allah ñu di leen di indil ay jàngat yu am solo yu wér te leer jaajëf